ما هل أمين فوق الأمين jërë ngeen jëf mbokk yi bu ngeen déggee bayit yooyu xam ne la daan xew xewaat na ndigal bàyyikoo na fa mu baaxoo bàyyikoo ñëw ci fi mu baaxoo ñëw ndigal bàyyikoo na ci seex mamadul muntaxaa jaar ci sëriñ Abo Mbàkke xalifab seex mamadul faadal bu ngeen gisee jitaay bii xam ne la fa daan xew rek mooy xew lañ daan waajal rek la waajal mooy bis bu ñu amul lu moom mooy bisub kasu rajab sëriñ aboo mbakke jox ndigal jëwriñam Cheikh Mamadul Basir Cheikh Abdul Fatah mi yore kàddu gi ñu jaar ci seen jëwriñ ji nekk fii Italie muy sëriñ Fallu Jatara di ko ànd ak ki nga xamante ni nag ba ñu tàmbalee màggal gi seex aboo toog ba tey moom la ñu yebal muy ndaw lu mat sëkk ndaw muy sëriñ Cheikh Oumy Mbàkke moom sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Fallilu mi ngi feggoo ak sunu bàyyi daam gay mi nga xamante ne nii moo jiite commission culturelle bi ak sii Sidi Diop mi nga xamante ni nii moo nekk fii ci Weneto fii ci jëwriñu Weneto ak Serigne Cheikh Lo nii la ñu faaxoo jitaay bi sëriñ Fallou Diatara dina jël kàddu ci turu mboolem donge Serigne Fallou yi féete fii Italie bu ñu paree dinañ jox sëriñ sii Sidi Diop mu jël kàddu ci waa Weneto bu nu ci noppee dinañ woote ci turu soxna yi soxna Mbène si la dina soññee ci ñoom ñu waajal bis bi nga xamante ni nii moom lañuy ñuy dëgmal muy bisub Cheikh Mamadou Fadal bisimilah Baye Fallou Diatara bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi fi teew yépp ak yi dégg suñu kàddu ak mboolem ñi ñuy seetaan noo ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñaan yàlla suñu borom mu yàgg fi lool tam ànd ak ak ba naal yim bëgg a liggéeyal seexal xadim lépp suñu borom defal ko tawféex ba mu def ci lu kawe jortam te nun taalib yëpp nu ànd ko ak moom la nuyu nuyoo sëriñ abul baraka mi toog jotaayub seex mohamadul faadal di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool tam ànd ak ak wér ba naal yi mu naanal seex mohamadul faadal suñu borom defal ko kattan ak wér ba lépp mu def ko nam soobe te lépp nu ànd ko ak moom nun taalibe yi di nuyu mboolem njabootu Cheikh Mamadou Fadal gi yëpp di leen siyaara ci weeru tedd wi di leen ci ndokkeel dellu si ji jiraay bi di nuyu suñ mbokki taalibe yi ñu fi bokkal nekk yëpp mboolem waa fédération bi ci gox yi fasanti ko yëpp fu fi waay man ne ñoo ngi lay nuyu di la siyaara baax di soññ suñ bopp te di la soññ ci bis bii nga xam ne amuñu lu dul moom te dëgmal bis bi muy bisub Kazu Rajab wala tolloog ajjuma di la 17 ci weeru février di fan ak juróom-ñaar ci weeru Kazu Rajab kon ñoo ngi ciy woo bokki taalibe yëpp di ci woo bokki julit yëpp rawatina na gox bii ñu nekk muy mboole Veneto ak li ko ci biir jataay bi jëwriñ yaa ngi fi muy Serigne Sidi Diop mi nga xam ne moo jiite fédération Veneto bi ba treize ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo bàyyiwuñu kenn sëriñ Seex Lo ak mboolem ñi ñi mu àndal ci wàllu alxuraan gi ñu ngi woo ñëpp di santaane nag njàngum alxuraan mi fu waay man ne ci réew mi ak bitim réew ñu ngi santaane njàngum alxuraan mi lu ci man ñu dajale lim bi def ko àddee Seex Mamadul Faadal kàddu gi nag ñu ngi koy yëkkati ci ndigalal sëriñ Seex Umi Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwriñ ji sëriñ Abo mbake yebal muy téwé ci magal gi kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tay wo ñëpp yalla na yalla yóbbu ci bis ba ak jàmm nu àgg ca bis ba tàmbali ci alhamdullilah te bis tamlik ci bismillahir rahmanir rahim te ci alhamdullilah rabbil alamin jere ngeen jëf auzu billahi rajim rahim borom tuba mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen di leen bu baax ci kàddu yi ñu yëkkati comme noonu ko suñ mbokk yi waxe rek eh, màggal gi nga xamante ni ñu ngi koy defe fii ci Touba Veneto di Kastraget di màggal goo xam ni kenn ku ci nekk xam nga la ca ne daanaka du jar ñu la koy wax kon la ñuy def rek moo di woo ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi nga xamante ni mooy tubaab Veneto di jëwri ni daayira yépp muy juróom-ñeenti daayira te xam naa su ma tuddee jëwrin yi day gudd te duma matale waaye nag ñu ngi woo képp koo xam ni jëwrinu daayira nga yow ak sa mbooloo nga xam ni bis bi sa bis la sa teewaay ak ña nga àndal mu teel lool ci wet gu nekk nag daanaka du jar ñu koy lim di woo tamit suñ mbokk soxna yi nga xam ni ñoom saa su ne ñooy jëkk ca liggéey ba di ca mujj ak suñ mbokk yi nga xamante ni ñoo féete ci goxu Veneto tañ bokk diine ji bokk lislaam ji te saa su luñ woote ñu wuy suñu kon ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñ kenn bu fekkente ni dugal nañ li nga xam ni moo jëm si ca saal ba muy e, yoon wi incha allahu danañ ko def ci e, ci ci ci ci ci ci ci ci affiche yi kenn ku ci nekk dana ko gis incha allahu adresse bi ak position bi bu ko defee kenn ku ci nekk da nga mën a xam yoon wi ndax yomb na lool ñoo ngi tuub tey jégalu bu baax tey woo daal képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kaddu ci màggal gi nga xamante ni moom lañ fas yenee defee fii ci Touba Wénato jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh noo ngi jël sunu nuyoo ak sunu ziar ci boppam di ko sof ci nuyoo kilifa yi nga xamante ne bii ñoo weesu. xamna di wote ci bis bu mag bu tedd bi nga xamanteni bi damay wax ni murid yi ñoo ci gëna fess waye julit yalla yépp la ko sun borom wërsegalé ndax borom bis bi ci boppam euh, euh, ci xorom sa comme ni ma déggee sëñ Fallou li jataram yi doon ko wax wax ni ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne lay ma ni cëpp té mu bu doon bis bo xamanteni bi borom kat ñëmé wut bor daa am fay kon bis boobu ci la ñu woo ñëpp ci turu commission culturelle di ko jaaree ci boppam ci biir Touba Veneto loolu nag ci ndigal loolu ci boppam dañuy dugalaale ci boppam ndigalu Serigne Sam Diop mi nga xamante ni bii moo jiite mbooleem jànkati xaside yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci diaspora bi ñi ngi woote ci boppam ñu góorgóorlu bu baax a baax a baat fasaat yéen ci boppam jàngam alxuraan mi ak xaside yi lépp lu ci waay mën ak salaatu ala nabi istixfaar lépp lu ci waay mën def ko ci boppam addiyee Cheikh Mamadou Fadal tey ñaanitam itam nangul na ko ci biir loolu itam maa ngi yalwaan julit yëpp ñu fas yéene ci boppam ñaan ci fasaale ci boppam ci barkeb Cheikh Ahmadul Fadal jafe-jafe yi nga xamante ne bii moo nekk ci àdduna bi yëpp sunu borom saafara ko ci boppam ba àdduna bi yëpp dal ci jàmm ak salaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di leen delloo seen di wax ni ñoo ngi woo suñu mbokki jigéen yépp yi nekk ci Veneto bi rawatina daayira fédération Soxna Jaara képp ku ci bokk rek ak ku nekk ci Veneto bi rek ñoo ngi lay woo ci kas rajab bi ci Touba Veneto képp koo xam ne nag jigéen nga rek ñoo ngi lay soññ ci waañ bëgg nga ñëw jàppalañ ci waañ wi dimbaluñ ci waañ bi surtout waa Trebiso bàyyiwuñu kenn daal ñoo ngi siyaare ñépp di sargal ñëpp di bal ñëpp ak tay bal ñëpp ak wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibe yi bu ngeen gisee jataay bu sell bu tedd bi ngeen xam ne kon bisub màgg bu tedd bañ daan woote rek moo ñëwati muy bis ben muy bisub cheikh mohammed fadal mbacke noonu ko jëwni jiite yi waxe rek ñaanal cheikh muntaxal bashir suñ borom yàggal ko fi lool tam amul ànd ko wér cheikh abul mbakel baraka yalla ko fi suñ borom defal aw tawfiq lol defal fanu sayduna nooxuwa ci barkab cheikh mohammed fadal mbàkke ni ko jawri ñepp waxe nak eh, kep ko xamni dañ la daan lebal man nañoo wax na man nga ñoo fay ci li tax ñu wax lol nak moy ki nga xamne mom lañuy wotal bis bi ni kep ko xamni ne ni yaa ngi yorug ro di noy amé nga ko ak pay lolé tax nak ñu am fitu nek kep ko xamni lebalon nañ la nga ñëw fay si kon nag ñi ngi woo mbokk taalibe yi nga xam ne di woo mbokk jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Italie gépp képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ak ci ëttu diine boo bokk rek ñu ngi lay woo ci bis boobu képp koo xam ne nii rek foo mën a bokk ci kërug diina gu mën a bokk rek moo xam ab chrétien nga moo xam nga loo mën a doon rek ñu ngi lay woo ci bis bu màgg boobu ci biir loolu na commission euh, commission organisation wax na ne mi ngi woo képp koo xam ne nii rek jëmmi ma Mouhamadou Fadel Mbacké ñor na la nga ñëw jàppale ko ci liggéey bu màgg bu tedd bi nga xam ne uh, ay ay ay doomu aara fi doomu aadama ñoo fi daje ngir rek kan ngir jëmmi Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké kon ci turu sëñ Mor Gueye rek nga ne képp koo xam ne nii suñ borom dogal na nga yëngatu ci organisation ñu ngi lay woo ci bis boobu waaye li ñu gënal ñoral nag mooy bu ñuy wax Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké alxuraan ak xasida moo tax kon nag ci commission culturelle bépp rek képp koo xam ne nii yaa ngi dégg suñu cadre rek ñu xam ne njàngum alxuraan ak xasir yi kon commencé na lu ci waay jàng rek incha allah boo mënee booy ñëw ci bis ba boo ko mënee indaale nga commune ko commission culturelle bu ko defee kon ci turu sëñ Saliou Seckit ni nga wax bépp rajaskat boo xam ne ni rek yaa ngi ci biir Italie wala nga nekk ci biir Europe waaye noonu ko suñ kàbb waxee rek ci turu Baye Sam rek bépp kuréelkat boo xam ne nii yaa ngi ci biir Italie rek incha allah ñu ngi lay woo ci bis boobu di ñaan suñu borom yóbbuñ ci ak jàmm te defal ci ndam ñu xam ne kon adresse bi incha allah dana jaar ci suuf écran bi autoroute yi nga xamne mom la di jëlit inshallah ba aksi fi inshallah allah dana jaar ci suuf écran bi yàlla suñu borom defal ñu tawfiq defal ñu dam nam ñu ko daan defal ci barkam Cheikh mohammed Fadil Mbacké alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله wa tamkin wa ba'du assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa Euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare jël nuyoo boobu siyaar boobu di ci jiital sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des mourides ñaan suñu borom yàggal ko fi lool dañu ànd ak moom liggéey bi lim naanal suñ tubaab yi mu màggale ko ab sag la ci diine sag la ci àdduna bépp ñëpp war nañ ko ñaanal baax a baax ndax koo gis soxol sedd ku ku déglu ay waxam soxol sa xel dal ko yàlla na fi yàlla yàggal di leen jot lim nuyoo jëwriñ Cheikh Modou Fadal di sëriñ Abou Mbacké Cheikh Fadal mi ngi leen di nuyu bu baax te leen sant di leen ñaanal di leen gërëm ca di leen sant ci fi ñu toll di leen ñaax ci la ca kanam xolum sedd na guy xolam dal na ci yéen di ndax la fi wàjjëram yu la fi baax yi bàyyi woon eh, sëriñ Modou Moussa Mbacké mu Cheikh Mouhamadou Fadal nga xam ne màggalu Kazu Rajab gi buñ ko dee def ci ndigalam lañ koy lañ koy defee ba tey kenn du ko fàtte ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ne moo ko woon ñoom nag bi bi sëñ Abo ñëwee dañ la fi magam yu baax yi defoon loola da da yokk waaye du ci dara moo waral màggalu Kazu gi bis bu mu mën di tollool bis boobu lañ koy def def naa ne sëñ Moussa Fall moo leen ko digaloon sëñ ah Cheikh Mouhamadou Lamine ñëw di ko. sëñ Abo Ba barke bi ñëwee ci loolu loolu yi la la sof ab liggéeyam kon nuyoo boog siyaar boobu ñu ngi ko teg ci loxol sëñ Fallou Diatra mii mu jot leen ñu ko mboolem ñi fi nekk bu ñu ko tuddee rek dafay doy. ak suñ mbokku mbaax mi di sëñ Mourtala Mbacke moom sëñ Abdou Lakram moom sëñ Afe toog fii fekk jotaay bi kon am nañ am nañ xel mu dala xoq ak xel xol sedd guyu ci sëtu sëtu sëñ Afe bi fekkee màggal gi. bu fekkee avant première màggal gi kon rafet nañ jot ne màggal gi bokk na ci màggal yi daq ci ci magal yi ah, di di ci woote nag mboolem suñ mbokk yi ne ci réew mi ak mboolem ñi nga xam ne ni Sëñ Tuubaa defar seeni maam ak ak mboolem ko xam ne ku bëgg lu baax nga wala Cheikh Ahmad Fadal lebaloon la loo ko bëgg a fay ñu ngi lay woo ci màggalu itali gii ñu dugg a defee fi ci Veneto Cheikh Ahmad Fadal nag def naa ne su wootee dana bari ñu ko wuyu ndax ñi koy woo bëri na te fi ñu koy wooyee bëri na te liñ koy wooyee bëri na kon nag moom moo woote fii ci Veneto kon jàpp naa ne. mbooloo danañ fi ñëw te euh, sëñ Abo it euh, sàkku na ci sàkkul nañ ko sàkku nañ ñaan ci moom bii ñëw mën nañu màggal gu ngeen mës a def gii moo ciy dàq kon nañ xam ne kon nañ dañ dalal xel yi te xam ne màggal gu ñu def gii ci dàq ndax mooy suñu fàllu te moo ko wax kon kon am na am na ci xel mu dal euh, bis suñu fàllu nag la ci jiitu mooy di alxuraan ndax moom day alxuraan bindal na sëñ tubaa lu mat 28 kamil kon kooku bisam yaakaar naa lu ñu ciy def alxuraan si jiitu lu mbind ci xasida it kenn kenn mënu ko wax bari na lool ci xasida Sëñ Tuubaa yoo xam ne mbindam loxoom la ak xasida boppam yoo xam ne moo ko moo ko bay kon luñ ci jàng ci xasida it doyut ku fonkoon turu turu yàlla la it nag nga xam ne lu mu am ginnaaw ginnaaw lu mu am rek ginnaaw juddu bi turu yàlla ko may ku fonkoon la ku ko daan def la kon lu waaye man ci turu yàlla na ko def ñu def ko àddee Cheikh Fadal ndax ku fonkoon turu yàlla la ku fonkoon alxuraan fonk xasaayit def naan ab la ci jiitu mooy alxuraan ak xasaayit kon lu waay man si kaamil boo mënee jàng alxuraan jàng ko boo ko mënta jàngee na nga wut ñu la ko jàngal ñu jàng ko def ko addi sangot fadal xasida it lu ci waay man jàng ko boo ko mënta jàngee nga wut ñu la nga def ko addi sangot fadal salaatu ala nabi bu waay man ak astaxfara ak ak istaxfaar bu waay man nga def ko addi sangot fadal def naa loolu mooy dëgg dëgg màggal gi ku ko def am nga yool am nga yool boo xam ne lu ko sangot fadal fayee sa xol dana sedd guyu kon ñu ngi wootee ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn di ñaan yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm dañ fekk ak jàmm te magal gu ñu mas da magal gi dàq ci te rafet na ci njort ndax sëñ Abo loolu la wax kon ñu ngi ci woo ñëpp yasar lanaa jamihu maa yanfa'unaa wa kuffanaa jamihu maa yadurrunaa asalaamaaleykum wa rahmatullah